noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xeewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba at nay tukki mbokk yi nit de buy liggéey ngir fàggu lu mu fajee aajoom faje ko aajo yi ak njabootam loolu lu yonente bi xemmem loo jullit ñi la lu yonente bi soññe la itam muy du liggéey ngir fàggu lu nit ki di faje aajoom di ci faj aajo yi ak njabootam ci loolu lay waxe moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki de mu dem taxane mu dem taxani jaay ko lam ca jële mu yàlla fegal ko ca yàlla sàmmal ko ca ngorom yonente bi nee na loola moo gën muy ñaan ak a laaj buñ ko joxee ak buñ ko joxul mu waxit ne nit ki dundewul lu gën lu jógee ci liggéeyu boppam bu mu liggéey bu mu liggéeyal boppam ba amee ca dara dunde ko amul lu ko gën wax na yonente yàlla daawud alayhi salaam da daan liggéey ci loxoom bi ca jële lu muy dunde xër gu ndaw ñi xër ci liggéey nag ak fàggu loolu lu dal xel la luy joxe yaakaar la lu ñu war a soññ la itam waa xel googu nag wërta àgg ci ñuy tàbbal seen bopp ci loo xam ne seen bakkan mën na caa des ngir rek ne daal danañu am liggéey mbaa ñu dee ba naan barsa wala barsaq loola waru ca àgg tukki ngir sàkku wërsëg muy jóge fi nga nekk dem feneen ngir sàkku fa wërsëg loolu lu lislaam yoonal la lu lislaam maye la waaye nag sàkku wërsëg daa war a doon ci anam goo xam ne bu yiw lay doon bu yàlla lay doon anam goo xam ne dana sàmmal nit ki ak dundam sàmmal ko ngoram sàmmal ko digniteem ndax kat nit ki lu mën a xew li ko yàlla bindal ci wërsëg dana ca jot nit ki lu mën a xewit munta wërsëgoo lu ko yalla bindalul ci wërsëg yonente bi sallallahu alaihi wa sallam dafa wax ne na ngeen ragal yalla ta rafetal ni ngeen di sakko ni ngeen di sakko wërsëg ndax kat ben bakkan du faatu ta jëlul wërsëgam web web web bu yeexee sax mën naa yeex waaye nag dana ci jot lépp luy wërsëga moom balaa moo faatu dana ci jot ba mat sëkk kon na ngeen rafetal ni ngeen di sàkkoo na ngeen ragal yàlla te rafetal ni ngeen di sàkkoo nangeen ngeen di jël li dagan tey bàyyi li araam tolluwaay bii nag bokk yi nga xam ne ñenn ci ndaw ñi ag nañ ci te mooy ne barsa bar barsàq lu man di xew dal nan dem lu ñu ci fekk baax na way bobu ay bir yu bari ñoko waral te bir yoyu nun ñi doon nañ ci dara bokku na ci liko waral fi nga xam fi la nit ñi tek alal ak am am ba danaka mom lañ def bu ñuy fonki nit ku ko am ñu fonk ko ku ko amul duñ ko fonk ku ko ëpple ñu gën koo fonk te duñ seet sax nan la koy amee loolu bokk na ci li waral lu mel nii ndax nit ñi itam ñenn ñi luy tax ñu fonk leen luy tax ñu teg leen fenn luy tax ñu yég leen ñoom itam dañ naan kon ñoom nañ fexe ba bokk ci bokk na ci li waral lii itam muy tolluwaay bii yenn ndaw ñi àgg bokk na ci taxawu yenn way jur di taxaw seen doom taxawu bu ëpp ak sëkkital gi ñu leen di sëkkital ba dañuy dem ba duñ mën a ñàkka duñ ci mën a nekkateeg ñoom daal sëkkital goo xam ne dalañu àgg sax ci di leen jeñ ngir ñuy wut ci anam guñ mën di amee rek loolu tam bokk na ci sëkkatal gi yenn waajur yi sëkkatal seeni doom di leen taxaw genn taxaw gi daanaka dañuy àgg ci ne leen dem leen lu man ci xew na fexe ba li diw am ngeen am ko wala li diw def ngeen def loolu tam bokk na ci li waral tolluwaay bi ñenn ñi bokk na ci li ko waral itam ñi nga xam ne ñoo yilif dëkk yi ak ñi yilif réew mi ñi jiite dëkk yi ak ñi jiite réew mi ñoom it li leen war ci wutal ndaw ñi am njàng njàngum xam-xam ma ñu aajowoo wala njàngum mécc mañu ñu aajowoo la leen ca war dañ koo deful loolu kon day wane ne lii xew ñëpp ci bokk kon ñëpp war a ànd itam nag ngir fexe ba dakkal ko ba dakkal lii nga xam ne mooy riir riir gi ndaw ñi riir ne daal dañuy dem leen di fekk baax na loolu day tax sax ba sunu ëllëgi réew sunu xel du ci dal duñ xam nu muy mel bu fekkee ndaw ñi yépp wala ñu ci baree bari dañuy sóobu ci lu mel nii kenn du xam ëllëg kon nan la réew mi mel ñoo ngi ñaan yàlla mu sàmmoon sàmmoon sunuy ndaw ñaan ko mu defal ñu yiw àddina ak àllaaxira musal nu ci sawara sàmmoon sunu gëm ubbil nu bunt yi soob nu ci njub mottali suñuy mbébét may nu fan nu gudd ak wér ak mujj gu rafet